doo jàmbaar dama lay duma barki yéen di yàlla Muhammad dama lay xool loo am mu jéggi sa tànk dama lay duma kii dama mbokk yi déglu leen face to fees bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal du koy def drapeau Ibrahima fay Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci face to face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara jàkkaarloo fa ak Deko Krik Garapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ne ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa 12 octobre ci arène nationale à partir de 15 heures bu ko loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production actuellement ñi gën a ancien ci manager yi laa bokk bu dul benn mennum baabu ak mbaycuun parce que ba ma fay ñëw dama nekk xale dama daan yor saak def ci ay licence di yor plus de cent litres tey maa gën a néewle ménage bi gën a néewle ci làmb ay mbër man la matul sax sept litres li ma yor juróom-ñaari mbër. Mhm. kon benn tànk bi mi ngi si biir. Mhm. benn tànk bi mi ngi si biti. mais mhm. nag émotion la. yàlla moo nattu ñu juddoo ci famille mbër bokk ci ñi ciy jox suñu cër ñuy wax ñu nuy déglu ñu génne suñu argument ak suñuy xam-xam. di ko wax yaakaar naa ne loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo nu couvrir. samay doom damay toog ñu naan ma papa génneel ci lii. man leen nag. lii sama émotion la bu ngeen ma bëggee rey nee leen ma bàyyi. ñu ni ma kon topp ci. topp ci ñuy ànd di liggéey lépp di rafet. kon tey bu ñu xëccoo yàlla def ñu jël Malick dénk ko mbir mi la ma waxoon Moustapha Gueye ah Moustapha mu ne ma ne ko jàppal ni ñaar ñii kuñ ci fal nañu yeesal suñu jàpp ànd ak moom làmbuñ mm-hmm. lañ bëgg. foofu la ñu toll kon maa ngi félicité Malick. Mm-hmm. ñun nag dafa am loo xam ne ministre bi daf ko wax. Mm-hmm. ci de damay yeggale déglu. non na naxaar ma yeggale waaw non naxaar ma yeggale balaa maa lii di rëcc. non daf may rëcc. bàyyi bàyyi ma yeggale. bul ma dagg. ma ni Ibakaan Ibakaan téléphone la yor. loolu la quoi bàyyi ma yeggale. xam nga débat bi tam. waaw non xam nga nag débat Lamine man boobu léegi maa ngi déglu. munu maa jël kàddu ngay dugal ay Ibakaan naan waaw ma ma wax waaw mais jékki-jékki rek daal di xadim nit ki noonu ni ko. allo bu ma fàttee li laa jëm. Ah, waaw ni muy def léegi am naa lu ko def. Eh, yooyu waay. Eh, da nga teg sa micro bi de. waaw Lamine. waaw. maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu baax a baax père Bakane dafa a toog fii ni ñu fi toogee. ak ah. mu xalaatam. maa ngi lay nuyu bu baax a di la ziar lan moo nekkoon sa xalaat. waaw avant tout dama lay remercier dama lay féliciter d'abord si émission bi nga def tey si ñi nga xam ne ay kàngamu làmb lañu. Mhm. gis naa si le promoteur du troisième millénaire Kandji. ici ma consoeur euh, Ndeye Koumba Fall. ici le promoteur du Baol euh, Assane Ndiaye ak euh, ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye. di nuyu tamit moom fu namee frère Pala Diop. di rafetlu émission bi trop trop trop di ko rafetlu parce que l'émission vient à son heure. Mhm. pourquoi ma ne l'émission. bien à son heure parce que tey le euh, arrêté bi nga xam ne tey waa askanu làmb depuis le 10 octobre ñu ngi ko doon xaar donc l' tey vient de tomber arrêté bi li doon xaar mooy kan mooy nekk le nouveau président du CNG. Mm-hmm. tey nag arrêté bi génn na ñu ne Malick Ngom moom la tab pour mu nekk le président du CNG pour une année. Mm-hmm. pour une année pour ñu war dem fédération. Ah. donc loolu moom mooy le termes de l' Malick Ngom ñu tabb ko pour une année pour ñu war a dem fédération mhm. donc loolu maa ngi si félicité yi nga xam ne Malick Ngom ak équipe bi nga xam ne tey ils ont fait une campagne bu extraordinaire benn benn mun naa ko tuddee lu lobbying bu doy waar ba nga xam ne tey Malick Ngom tey jël na ndam li na mu Bira Sène Bira Sène il a fait quatre ans moo ngi toog le jeudi 6 novembre 2020 le ko Matar euh, le ministre Matar euh, Matar. Matar Matar Ba Matar Ba tabb donc tey la mandaam jeex le 31 octobre 2024 donc moom quatre ans la toog mais si quatre ans yi il a fait beaucoup de choses beaucoup de progrès si wàllu làmb bien que lépp motewul quatre ans yi lépp motewul donc tey dem na kan mooy ñëw Bira euh, Malick Ngom mooy ñëw pour une année pour mu war a yóbbu fédération man damay ne damay posé wu question mooy est-ce que en une année tey Malick Ngom li mu bëgg si làmb est-ce que dina ko réussir. Mm-hmm. en une année est-ce que dina ko réussir ba nga xam ne parce que démb ministre dafa ne ki may fal ki may ki kiy toog du mun a présenter wu ci ci fédération bu ñuy dem fédération kooku du mun a du mun a du mun a présenter wu. donc démb ministre bi wax na ko si Walf TV donc ça veut dire que bu ñuy dem président bu ñuy dem fédération Malick Ngom du présenté wu war beneen bi mooy li ma bëggoon xam mooy ministre bi ci ay vote la falee ki nga xam la ñu falee Malick Ngom wala moom si prérogative li jël ne Malick Ngom mooy nekk le président du CNG loolu waroon na ko leeral si arrêté bi beneen chose mooy dama gis ne bureau bureau bi ñu fal tey si nga xam ne mooy CNG dama gis les anciens accompagnants de Bira Sène tey ñoom nga ñuy waat si nga xam ne moom mooy le nouveau bureau bi nga xam ne tey joxe nañ ko arrêté nañ hmm. loolu man li ma si gisoon mooy tey Bira Sène mënul échouer euh, mënuñu wax ne dafa échouer nga jëlaat ay yeneen membre en yoo xam ne tey ñoo dirigé woon làmb ñu ne làmb sooxe na nga dem jëlaat leen andiwaat leen si bureau bi man tey su ma nekkoon le ministre damay gome li nga xam ne lépp loo xam ne Bira Sène moo ko yoroon dem leen di gomme waruma fa jëlaataat beneen membre mais booy xool bureau bi membre yi nga xam ne Bira Sène ñoo fa nekkoon ñoo ñëwaat si nga xam ne mooy bureau bu bees bi donc man inquiétude yooyu laay am ndax si une année mun na changer làmb mhm. ndax ci une année mun na yóbbu fédération lamb ndax bi la falee ki nga xam ne mooy Malick Ngom wala moom ci prérogative am li la xam ne moom moo jël tabb Malick Ngom wala politiquement la falee ki nga xam ne mooy Malick Ngom parce que politique bi mu ngi ciy génn ne Malick Ngom il est membre de PASTEF moo tax ñu fal ko président du CNG loolu qu'on le ou non loolu day génn souvent. loolu day génn day génn souvent si wax boobu sama sama sama xalaatu la mm-hmm. man sama xalaatu li nit ñi commentaire li di wax laa wax ma ne nit ñi politiquement li ñuy jàpp ne politiquement moo tax ñu fal ko loolu boobu de dafay dafay ñëw lu bëree bëri loolu moo nekkoon sama xalaat si fal bi nga xam ne fal nañ ko le président Malick Ngom di ko féliciter di ko ñaanal mu am réussite totale buñ ko jàppalee nag mu dox mais li gën a couler Bira Sène mooy Balla Gaye 2 bi nga xam ne convoqué woon nañ ko bal Gaye 2 bañ a déféré à la convocation loolu moo gën a andil li nga xam ne tey Bira Sène bu ñàkkee poste présidence am bi loolu si la bokk beneen bi mooy Bira Sène dafa bëggoon révolutionner la lutte yar yar amateurs yi yar lutteurs yar ñëpp loolu tamit Sénégal amateur yi ak mbër yi xawuñu nangu loolu. man gis naa loolu bokk na si li nga xam ne tey li gën a kule li nga xam ne moom mooy Bira Sène Lamine Seck merci jërëjëf di nuyu ñu nekk si plateau bi jërëjëf merci. ko mu xalaatam Ba la eggale. bàyyil père Ba. doo dama lay duma. barki yéen di yàlla Muhammad dama lay xool loo am dama lay mbokk yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal du koy def drapeau Ibrahima fay Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci face tu face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara jàkkaarloo fa ak Deko Krik Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ne ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous 12 octobre ci arène nationale à partir de quinze heures bu ko loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production